suñu mbokku sénégalais yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajafal bu baax topp bi ngeen di topp seen TV ci biir réew mi ak bitim réew Mouhamadou Moustapha Diagne xale bu góor boo xamante dafa am ñaar fukki at ak ñent ñu sëq ak waajuram bu góor waxtaan bu yaatu yaatu gannaaw ba nga xamante ne faat nañu ko alxamis bi weesu benn centre guérisseur boo xamante ne moo ngi ci Pikine Technopole waajuram wax nañu nan lañ ko faatee ñu bàyyi leen ngeen seetaan entretien bi nga xamante ne moom la ñu am ak moom. Euh, salaamualeykum papa nuyu nañ la ñu bàyyi la nga nuyoo ak euh, internetu Sen TV yi nga présenté wu. salaamaaleykum àddina salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum waa Sen TV ak internet yëpp nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan. maa ngi tudd euh, Arona Diagne dëkk Këri Suuf man maay papa xale bi décédé. Mouhamadou Moustapha Diagne la tudd. ok. Euh, Papa, est-ce que vous pouvez ñu expliquer Mohamed Moustapha Diagne euh, décès bi nan la ñëwé ak euh, si technopole bi nan lañ ko fait merci ci question beaucoup. parce que Mohamed Moustapha Diagne historique il avait da normalement c'est en cours de route qu'il avait des problèmes. jëkkuñu dem ci euh, ci foofu dañ koy yóbbu ci structure normal caara yi ñu xool ko ñu koy suivre mu am dossier. moom lan moo ko jotoon. lu ko jotoon c'est tout comme euh, toute personne insomnie wala du n'importe quoi man loolu laa ko xalaatoon wala ay trouble mental yoo xam ne ne ñi am ñiy faj loolu ñoo ko war a seet moo tax en en euh, premier temps caara laa ko yóbbu ñu koy suivre pendant un an. ça allait bien parce que doon nañ ma jox tous les médicaments qu'il faut boo xam ne ne ma normalement c'est euh, ñun Sénégal nag suñu tradition la famille est large il vous euh, pour dañu lay wax ne da nga ci boole yëfu olof wa bala ñuy ñëw si yefu olof bi euh ñaata at la fièvre bi nekk ci mom ba nga koy yóbbu hôpital ñaata ñaata at la fièvre bi nekk ci mom ba mu ko yóbbu hôpital hmm

la famille sénégalaise est large man am na lu ma moom am na loo xam ne mbokk yi ñoo ko moom ak dëkkandoo yi fépp foo xam ne ne yaakaar nañ ne sa doom bu fa demee wér bu ñu la ko waxee la nga fay dem moo tax bu ñu ma koy wax sax duma ko duma ci sawar mais je suis obligé am yaakaar rek ñu ne nañ dem foofu looloo tax ñu yóbbu ko foofu te demuñu foofu rek am na nous avons ñoo xamné né dem fa fa résultat ma arrêté hmm. si euh, ñu boole ñu dem ba ñu wax am ñeneen ñu nañ leen ah ma xawa a lolu ma tax ma ñu mais yobbu bi dafa am suivi il est accompagné tous les jours. Hmm. est-ce que centre bi. Eh, man nañu xam tour bi est-ce que juridiquement mo ngi exister est-ce que nek na lo xamante état moko autoriser pour mu nek fofu di faj nit ñi. non je ne pense pas mais euh, euh milieu la bo nga xam les autorités mënuñu ko bañ ignorer xam. amna tour centre bi. man xaw tour bi xaw tour bi nu mu tudd mais je sais que né c'est un milieu bo xamné ne tu ne peux rien faire lo xamné 50 ou 100 personnes defa ñëw par jour. te doo xam euh, état bi du ko xam. ok man ce qui m'intéresse que pour que euh, sama doom wér. waaw moo ma intéressé woon ñu dem ñu ne euh, mu ñu koy accompagner chaque jour mu fay dem. léegi est-ce que mën nga fàttaliku date bi nga xamante ne jour bi nga xamante ne si nga njëkk yóbbu foofu sa doom. non date bi moom bu ma waxee date exacte damay juum mais sa fait plus d'un an. Mhm. yaa ngi fay yóbbu xale bi. ñu ngi fay yóbbu tous les jours. Mhm. chaque jour. bu jëk sax dafa nekkoon ba Pikine ba Pikine pour euh, pour jégeñ euh, fuñ koy fuñ koy sangaté parce que ñoom da ngay ñow fofu ñoo ne la euh, pour ñu sang ko rek sangat ak yoy rek da ngay rang ça fait 50 personnes tu peux rester toute la journée ba moti 6 heures ngay mujjee lañ koy mujjé sangat dafa kay bé mu ñibbi. Mhm. ànd ak yaayam. ok li ma bëgg a xam foofu euh, foofu ay tradipraticiens ñoo fa nekk wala ay féticheurs ñoo fa nekk wala ay marabu ñoo fa nekk. dama la ne ay tradipraticiens la ñoo fa nekk man na ñi ma gis ay tradipraticiens lañ ñoo fa nekk un certain Madi moom moo nekk foofu avec ses éléments la mhm. boo ñëwee foofu moom. Euh, daal loolu moo fa am ay sangat ak yooyu. Mhm. mais gisuma fa féticheur gisuma ko leneen. Mhm. léegi lan moo fa xew bu xale bi faatu. lu fa xew mooy man de j'ai été interpellé par euh, ma famille parce que xale bi chaque jour mu nga fay dem di fa dem ñu koy sangat ak yooyu ba moment bi nga xam ne lu lu lu jot dafa war a lu lu euh, àpp baa jot rek. mais jour bu ma décidé ne ne ne kii dootu fa teg tànkam boobu la mbir mi am lu fa xew mooy j'ai été interpellé par par par ma fille pour dire euh, ma diir dire que ne euh, Mohamed am na dafa gaañ benn moromam foofu ma ne ah Mohamed dafa gaañ benn moromam ma ne ah sama doom de bu fekkee dafa gaañ nit te fa muy fajoo ñëw leen ñu affrété oto ñu dem directement parce que mook yaayam moo fa nekk yaayam moo woo la famille la famille ñun ñëpp ñu dem ba ñu demee. comme père de famille je dis où la ana un faible. ñu ñu dañ Dominique pour pour des soins ma na ndax ma Dominique avant un coup de route mais suis ndax ma Dominique ma qui ki sama parce que suis sax sama doom ma gis ki mu lu ñu wax ñu non parce que euh, euh, euh, information yi yëpp foofu nga ñun ñi ngi ñëw je les ai attendu bi j'ai demandé ana sama doom ñu ne ma ko doon sangat ah, jox euh, am lañ ko naan day reposer mané ko lan lay reposer ba muy ñëw dafa dox donc bu gañi nit dama ko ma joggé di dem ci parce que Je dafa am ay cours bu na ma euh, euh na ma moom muy gaañ nit dinaa ko laaj lu tax mu def ko parce que moom mun na wax mun na def lépp. waaw ba ñu bloqué pour man ma rafet njort rek ni yaar yee sama samay doom yëpp ngi toog samay sët ñu ngi toog ils ont voulu plusieurs fois ne ma per mun nga dem Mohamed après bu kiiwee ànd ak yaayam mu ñibbisi ma ne ko mais moi je suis responsable duma ñëw ba fii. te du ma gis sama doom loolu loolu xel xalaatu ko j'attends j'ai persisté ñu toog affaire bi j'ai def deux heures de temps peut-être yàlla sax bu fekk na ñoom nëbbuwuñu ko du ñu fekk xale bi xale bi mun nañ ko sauver gaañ nañ ko sax mais boobu motul boobu deewagul. Euh, dañ ko dóor wala luñ ko def. dañ ko dóor te diggante bi am na une femme bu xees bu ma remarqué genre naar. boo xam ne sangat nañ ko mu génn ànd ak ay doomam dem te xam naa ne moom bu duggee foofu fa muy sangoo war na gis sama doom wala dañ ko dañ ko naq ci biir ndox mi ce sont des criminels parce que man ba ma ñëwee insister ma gis leen ñu ne xam euh, ma ñu gis ne leen léegi euh, euh, dama nar a woo police ma ne damay woo police dama leen gis ñuy daw nii rek ki dafa sonn ma ne leen non j'appelle la police may xaw a may dem mais comme dama bàyyi ay njaboot yu jigéen foofu rek ay góor nekk fa amatul sécurité ma dem à peu près cent ou deux cent mètres may waññeeku si la ma taxi bi fekk ñaar ñi de jël woon taxi ñu ne Mouhamed dafa sonn ma ne ko Mouhamed lan moo ko war a sonal dafa sonn dañ koy yóbbu hôpital si lañu daw jël ay taxi rek dugal ko ci biir mais avant ñu jël taxi man dama foncé dugg ci biir kenn mënuma téye foofu ma a leen xool ma dugg bi ci biir j'ai trouvé mon fils allongé di baver. je suis ko xool est-ce que waxtu avez vu ngi wax. waxtu ça? kooku man man sama ko ne pas mort c'est sama mhm. mais toujours damay me njort ne xale bi ko Je j'ai pas fait de violence. j'étais euh, yàlla moo ma dimbali moment boobu j'étais trop calme pour mu revenir ma ñëw ci moom ma ma ma ma ma làmbe yi nii nii nii ak sama tàngoor yaram peut-être je sentais peut-être que man mi daal xaw ma ci dara daal bu baax ma gis ne ne nooyul ma koy def ay massage cardiaque ma ne ko li ngeen def ma ne ko xale bi tànkam euh, weex yi ku lap day nuróol yéen yéen ñii diggante bi kii dangeen ko dóor ba dugal ko ci ndox làq ka sax ay nit vous êtes vous des criminels mun xaaral ma ñu woo police léegi ma bàyyiwaat leen foofu ma ne leen bu ko kenn laal bàyyi ñu ma ma dem damay woo police ba ma doxee lu mat 100 mètres si la ma oto bi romb d'une vive allure le temps de revenir ils ont pris le gosse ils l'ont mis dans dëkk ci dugal ko ci taxi bi. yóbbu ko fan. dañ ko dugal ci taxi bi coow li bari ñu ne lañ koy yóbbu hôpital ak coow li bari ñoom ñu daw bàyyi. xalé bi ci biir taxi bi et c'était pas une sécurité ñu bàyyi euh, euh, nit ku nit ku gaañu ñu koy ci taxi jambour mhm. comme je suis le père et que toujours maa nga yaakar na né ki war na mëna dund ma borom taxi bi foncel Dominique pour ñu réanimer ko wala dara on est allé à vivre à lire ba ñu le médecin a constaté que né le garçon déna bu yag ah kon déna bu yag waaw. Je police police nous on a fait le constat police a en charge à ma sama na police ba commencé am police pour nous. mais ils étaient c'était un peu lent. Mhm. après ba ba mais on a fait la procédure on l'a amené à l'hôpital euh, Dantec pour les besoins d'autopsie la police m'a dirigé. est-ce que l'autopsie bi pare na pas pareegul. autopsie bi l'autopsie, na la révélé. parce que pour les euh, pour les besoins d'enquête je ne voulais pas trop dire sur ça. Mhm. parce que euh, je suis un légaliste moi, souvent je ne voulais pas parler sur le cas là. Mhm. je laisse la police. de Pékin faire son travail loolu tax ñun au début le lendemain dem na police ndax suñu tangay yaram pour le donner assez d'éléments pour ñu -hmm. Yalla def nak ñun ba may dem tribunal and ak sama njabot ñom secteur bobu lañu dëkk ñun ñu jot ci japp ñaar mhm. donc ça va faciliter donc dañ leen xamé won lu jitu ñun xàmmee nañ la jiitu parce que euh, opéra mbir mi muy am man jàkk maa ngi leen a jàkk te amoon na tamit ñoo xam ne ñu ko doon faju dëkkoon kër maamam àndoon na si ñun. Mm-hmm. ñooñu nag en cours de route xale boobu moo leen moo ne ñi ci bokk ñaara nga nële. Mm-hmm. si la ñu wàññeeku nag ñëw ma avertir police ñu ne ñoom ñu ngi ñëw. Mm-hmm. mais diggante bi police di ñëw ñoom ñu ngi déplacé wu pour dem. ok obligé avec ma famille ñu fexe ba jàppaleen euh, responsable yi lan moo si seen taxawaay ñi nga xamante ne ñoom ñoo sant centre boobu foofu. ñu sant centre bi moom la euh, ki nga xam ne ne ba ñuy confier sama doom moom laa ko confier muy ko un Madi moom il n'était pas euh, man woo naa ko téléphone wax naa ko ne ko. que jàpp nañ ko. kooku moom wóoruma mais na ñi nga xam ne ne ba mbir may am. ba mbir may am ka fa nekkoon ak ña ko dóor ñoom ñëpp police jàpp na leen. Mhm. police fexe na ba jàpp ñëpp. Mhm. police Pikine moom def nañ seen liggéey parce que ñoom fexe nañ ba jàppale ñoom ñëpp. Mhm. loolu moom gis naa ko. gannaaw ba nga xamante ne dem nga ci centre boobu nga am ci aperçu bu yaatu. ak li nga xamante ni xew na foofu tey boo ñu jàngatal centre boobu nan la mel jàpp nga ne seen liggéey moo ngi tegu ci yoon walla accident moo dal sa doom. man ba ma fa sama doom ba dernier jour ba nuñ lay expliquer ak nuñ lay nuñ lay gérer da nga naan fii lu normal moo fi ne mais man je profite de l'occasion pour demander à l'État et les services scientifiques police scientifique ñu dem foofu ratissé foofu yëpp xool ko parce que yeneen cas yu gën a garaaw mun nañ ko fa nëbb bàyyi ko foofu man xam nga lu ma peut-être sama dom mission la won bu mu don def ci adina rek moy pour sauver une une génération bo xamné dañ leen di note dañ leen di ñi néew doole ñi nga xam ne mënuñoo wax dañ leen di rey dañ leen di def lu nekk te peut-être ay fièvre xel lañu ñu am amala sen famille mënu ñoo wax wala am amuñu xereñu suivre mbir mom wala ñoo wax mo don mission pour que li arrêter depuis un an yang fay yóbbu sa dom tey bo doon xeyba a peu près ñaata nga fa fay xaliss ay millions ba mu feebar rek léegi waxuma la ñoom luma len fay mun ñoom ñoom xaw ma ko lu ci def mais dal rien que le transport lek geeg ay sarax ak ay kërëb kërëb yoyu j'ai beaucoup dépensé man loolu ça ne m'intéresse pas ce que luma may intéressé mooy que génération future que l'État jël sen ay responsabilités am ci xale yi feebar ñu defal des centres yo xamné ne ne euh, bu féké né dañuy def tradipraticiens praticien xam nga la ñu encadrer leen parce que peut-être di nga ci gis ay ay tradipraticiens yoo yo xamné mën nañ mais manque d'encadrement. Mm-hmm. je vais même l'enfant même avec des séquelles ci lañ fa daan def sur ci bët yi ba ma ma yóbbu ko hôpital euh, bi nekk Guédiawaye parce que garab yi ñuy utiliser. dafa demone bay laal beuti donc mën na ci hmm le médecin na ma li bo yéexoon ñëw mën na ci hmm comprendre nga baax expliquer mm-hmm. donc mama bi may gis xalé bi il mu jigi daw du wax wala wala on menacé peut-être ou bien il dafa xam lu bari mm-hmm. xam nga boo fréquenter ci milieu di tok ba timis mo nga fay joggé di pas mën nga xam lo xamné wala gis loo xam ne c'est trop cette bande de malfaiteurs là léegi nag dañ lay jéem a éliminer à plusieurs façons xale bi ñaata at la amoon bi muy gaañ la am vingt quatre ans yal na ko yàlla yërëm amiin yal na ko yàlla xaare aljanna lan ngeen di xaar si état du Sénégal wala justice par rapport situation bi nga xamante ne dal na sax kaw man je demande à la justice je reviens encore mooy lu ma gën a ñor fu mu nekk nii que justice soit faite mais leneen lu ma bëgg mooy xale bi dama koy qualifier comme ku nekkoon mission ci àddina pour lii mën a jeex gëm naa ne ni yàlla bu mu ko indee bés boobu la waroon a dem mais lii mu am nga xam ne ne àddina yëg na ko autorité yëpp yëg nañ ko ñu jël ci des mesures jéem a encadrer jéem a centre ces centres là ñooñu nga xam dañu am ay feebar ñu nous nu ñu leen di les Parce tax souvent nous, fu muy dal ce sont des familles qui nous ne parce que man suis ci a que peut-être le même jour j'ai trouvé une femme bu bu bu bu dama ko wax say de dañuy la ñaan gouvernement bi ak service euh, euh, euh, avec la justice service scientifique ñu dem ci zone ba bu laajee ñu remier souf ci ñu xol secteur bobu yépp ils peuvent ils peuvent trouver autre chose que bi comme lu mel naka. mën nañ fa gis ay nit ñu fa ray sul leen fofu yo da nga japp ne sa ndortu fofu du. ñàkk ce sont des criminels. am na nit ñoo xamanteni sul suul nañ leen fofu oh, ce sont des criminels du ma wóoruma dama ne la. ku dem ba oser osé def lu mel ni milieu ba nga koy defee war nañ ko saytu xool ko. mbir bu amee dañ ko war a saytu xool ko waruñu ko négliger te essayer d'encadrer ces centre la jox leen valeur parce que ñooñu ci population bi la ñu bokk. ñoo ngi lay jaajëfal bu baax monsieur Diagne yan kàddu ngay daanalee. man maa ngi gaalo maa ngi remercier média bi ñu ñëw seet si ma parce que si c'était pas pour l'interview mooy euh, naqadi na leen ba ngeen yëg ko ba ngeen déplacé wu ñëw dama leen ciy gërëm di la sant parce que tamit euh, métti na. nga am tiis bu mel nii képp ku ñew na la masse rek vraiment mun na la xaw a xaw a wàññi mhm. man daal je remercie tout le monde que li dal na fi gej na état bi gëna gor gorlu ci ñi nga xamne ay feebar lañ dañ am xel feebar wala ñu amul moyen ñu gën len encadrer len dimbali len lool dal la ci wax bañ sa sori je félicite tamit la police ce qu'ils ont fait parce que je euh, nañ dal ba am ci des résultats yo xamné ne dina ma euh, na xol voilà j'ai confiance à la police et la justice je veux que justice soit faite pour ce cas-là ñoo ngi lay jaajëfal bu baax monsieur Diagne euh, yombal bi nga ñu yombalal entretien bi yàlla moo ngi ko yombal à travers monsieur Ansoumana jonn euh, moo ñu utal sa contact ñu ànd ak moom ñëw fii hmm. vraiment moom tamit ñoo ngi koy remercier bu baax suñu mbokk sénégalais yi ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax topp bi ngeen di topp seen TV di leen jox dig daje si yeneen i reportage ak yeneen ñi entretien